premier jour bu Ousmane Sonko di ñëw ci kër gi fekk fa woon ki nga xamante ne mooy final te moom nee na saa yu Ousmane ñëwee moom mooy booleeg moom waaye saa yu Ousmane Sonko ñëwee ci ay waxam du ko yëg moom nee na Ousmane Sonko tabaski 2019 la fa njëkk a ñëw te lii la fa indi woon nuñ koy waxee mantelaatam frotté frotté bu baax la indi woon. waxaat ne Ousmane Sonko bu ñëwee foofu noonu day muuru day toog muuru ne Ousmane Sonko tamit bu ñëwaatee foofu bu ñëwee foofu noonu du bëgg sax kenn gis ko wala du bëgg sax kenn koo xamante ne kenn du ko xàmmee ma leen di leer kàddu yoo nga xamante ne gis na ma trop ma la koy wax mais loolu yëpp du dëkk Ousmane Sonko mën na faa ñëw ba des te moom sax du ko teg bët mais ñoom ñaar dañuy déggante.